na ngeen ko way bu leen bañ a def ay géwél maam Samba Jaara xam na ni daan doy na géer Cheikh Babacar ci niiri wayam duutu fay kayre ki njàmme lañ fi wayoon dootu réer jantu ngeen ba feeñ kefi noon laay wayal

ah alhamdulilah. moom bi daanaka daanaka bu jàkkaarloon moom moom. daanaka gis ngeen. waaw. Lamine de eksik. Lamine öyle ki yani. Lamine eksik. Wow, yapın gayet. Thank you. te la ko barkeel yooyu waaye laxas saa yi la ci nag barkeel yooyu la ko laxas saa yi

Se não era miséria, pelo menos. Ziaru cant la de waaw ziaru cant la. kon nag xam na ni mu denc ci ay wax du ma ko waaye li ma koy juñ. ñaare tool bu yaatoo. am lu ñuy tuddee joor. am na ñuy tuddee Deg Joor am na ñuy tuddee Sonjaan Sonjaan bi ci dem te dañuy soxla daba ak semmiñ te yaa ko yor yaa yor daba yaa yor semmiñ ku tëdd ki di jéggulu ndax bayit bu fekkee dikkal na la te waxi ku tëdd ki doo ko mën a ñàkk bañ a ku ci jàng xasida ba dajeeg fu muy wooyee yonent bi almuntaqa na nga ma koo jëlal baam ci lim bu takk ay fi mu koy waxee nag lil muntaqa tub ma yasurruhu bila nihayatin fa xidmati taqabbala boobu laa ci gën a wëlërante xam la koy ziyaare ko defee nag li nga xam ne moom la ëmb te ku tedd ki xam te nga nekkal ko yelu ak biral moo am moo tax du ma ko biral dama koy yelu li ma ciy biral daal mooy yaa yore ci sonjaan bi la ñu bëgg a dem ndax sonjaan bi la ñuy xamee jàmbaar dafa yomb boo ame dori jàll boo amee joor dafa yomb li nu ko ki defal nag xamuñu nu nuy sant moo tax jërëjëfe Serigne Touba yi mu koy biral ñi ëpp sax xaj na dañ koy yellu waaye ñun mënuñu ko ñàkk biral ndax kafaytani euh, ma jax jaxa min al layali fa shakartu ba jaxa jooju moo nuy yóbbee mu sant nu ak loolu moom Mbàkke mënuñu la ko ñàkk a gaal leneen la ci biir nag la sirru te yaa yor bunt ba ubbi foofu ci yem ba beneen yoon ndax itam nag eh, am na loo xamante ni bii kenn du ko biral ci biir mbooloo waaye lii ma sol moom laa soloon ba may ñëw ca kër gu mag jàkkaarloo jumaa ja waroon faa fan te ñaar yooyu doy ma sëkk ba ëpp moon ma fa la ma woon ba ñetteelu ba ñetteelu fan ba ma daw dem na daal loolu jarul ma koy firi xam nga lépp dëkk bii daal di Touba jamono toll na foo xamante ni bii daal wax dëgg yàlla am na sondaan ci sondaan bi lañ ko def foofu laa yem ba beneen yoon ndax itam nag jërëjëf waaye bañ ko ma nettali loo xamante ne am nga lépp sax. waaw dëkk lu fi waat. dafa lu fi waat te itam mënuñu ko ñàkk bañ a wax ndax nañ ci sa kanam danga nu koy may rek mu gaaral ci tuuti. dama bëggoon bu yii jàllee bu yii dëgg yàlla mulk ilaahi yaa xardana di saa tii jooju mu waxoon tubaab te. wax dëgg yàlla rajo um xiyaadal xisbi lillahi wahdahu dañ koy settantal bëggoon na bu ñuy jàllee daal wax dëgg yàlla lu taxaw beneen taxawin nun ndaw ñi ndax man du ma nangoo nekk ndaw rek laay fas yéene doon ngir bëgg ko a liggéey kara bi jaaw bi moo may feeñee lu dul loolu ci ñaar fukk ñaar ci mbàkk ji baa teef ci laa yem ak ko ànd ak ndaw ñi waaye dëkk bii dëkk bi daal moom wax dëgg yàlla jamono toll na foo xamante ne bii bii weesu bu ma ñëwaatee. waaw dëkk bi daal moom dafa am lu ñu ko ak balati dunya illa ya xablu wa birtuha ba daal la amil kablu waaye nag dana toll ci jamono boo xamante ne bii moom dara ñoru ci àdduna waaye nag ñun dafa am lu muy tiitaroo ci moom loo xamante ne bii faw nu jóg weneen jógin lu ndaw ñi bu ko defee yow euh, boo nu joxee ndem bi lañ jëm jox nu sémmiñ bi rek ak dàll. jërëjëf. loolu daal moom. loolu rek nuyu indi. jërëjëf Mbacke. Mbacke di la ko sa mag bi wax ne Moussa Mamadou Moussa Moustapha Bassirou yàlla yàlla dolli ay yërmande ak ay leer ak jëmm amiin maanaam ci keppaaram nga nekkoon nangul ko ba kër gi yàlla jox la ko tey. kon nag képp kuy murit di taalibi wax ma la murit waaye kuy wax ak am na ci yow am na ci yow bëggeel bëggeelu xol boo xam ne dégg ndax nit ñi seen xol yi kenn ko yàlla rek ko moom te yàlla bu gërëmee da yabal malayka mi nekk ñaari ko moom jox ko tedd ki ko tedd ki moom moom ko ki moom xam nga nit ñëpp yaa ki leen moom waaw nag mu moom ngeen dund ci dara maanaam moom mii moom mii eh, ka koy ki koy bëgg sa waaw dañ laa jël dañ laa dañ laa dañ ko dañ laa jël dugal ko dugal ko ci dañoo jël leeram dugal ci sa xol maanaam moom mi ku jullit ak ku dul jullit ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ko bëgg ndax dañ leen ko sañu ñoo bañ yàlla moom nit ñi jox ko Serigne Touba moom mii mënumaa wax ci moom mm-hmm. ndax li ma bind ci moom bari na bari goo xamante ni mm-hmm.

nag euh, mbir mooma nag. Hmm. wax dëgg yàlla euh, moo sa rëcc. foofu laa ci yem. dafa biire. Hmm. waaye lu maa de. Hmm. boobu Sëriñ doon xalifa. moom mu ko benn mbir man xalaat Sëriñ Mountakha bi xaar. xam ngeen dégg ngeen li ma junj fii. Mm-hmm. ay cos rek laa joxe damay junj rek. waaw ah. dañ koy bàyyi ba xam. waaw ah. dañ ko bàyyi ba xam li ñu koy laaj. waaw ah. li ñu koy laaj. raba bi ñu koy laaj. ak semeñ. nan ko déglu ba xam rek. yow da ngay wax li ngay wax rek bàyyi. waaw jeex na sax jërëjëf. ah. loolu gànnaay man dama koy ñaan ko tedd ki ni ko. maag sama ñëpp. ñun ñu dugg ci miimu Ahmadoom. bu ñuy dugal nag feneen mu boo duggee ci miimu Ahmadu googu rek da ngay dugg ci miimu Muntaxa waaw. genn miim gi. waaw man genn moom laay moom bëgg a wax loolu laay wér. genn miim gi xam naa ne man li may fajoo bu ma feebaree. ak alifam alif boo xam ne ku tedd ci moo ko mooy sama kii li ñuy tuddee perfusion. alif gi laa la waaw man lahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa. wa man hujaani shafa ma maanaam booy tëj. jëlal benn tombam benn nuqta booy tëj dara. boo bëggee tëj dara jëlal benn nuqta boo xam ne waxuma foofu lu ab arab bindee feneen déedéet loo xam ne waxi ko tëj dina la am bu fekkente ne ngaa bëgg a tëj dara jëlal benn baa boo xam ne ab baam wala tomb boo xam ne ab tomb bi boo bëggee ubbi dara wutal ak niimam wala ak waawam la amee <laughs> foo déggee ne médecin am na ci man yoon rek boo ko jàddu mm. te te yàlla di leen a may la waaye lam yan hu nii walay sa hu jasadi dai tabibi aw azan aw mufsidi waaw benn xaraf boo ca jël waaw dafa ak jàll bi dañ ko koy bàyyee nga bàyyi fi mu te mu tee dóor ñi ci biti ñëpp. ñi ci biti ñëpp. Mm-hmm. murid day xër rek. Mm-hmm. waaye fi toll gis la ci zaayir nii. Mm-hmm. daanaka mën naa ñor. waaw nekk oh. rek. foo nekk rek. li li li liñ def yow mi wër. Oh. defal aajo ñëpp. moo tax daanaka jarul la di ko jege dara man fii ma fii ma toog nii sax maa ngi moom leer na ma ne loo ma ci defal. Ah, waaw wëli foofu la ciy werante am na loo ma ci defal waaye man ak laxasaay laa koy def. waaw toog di julli raaket ju nanga ma ci nanga yooyu ma ci hmm. daal ak laxasaay la ci man. Hmm. te itam li ci kanam wajal hidariya kalmati na joji ak wajal ilahi maskani tuba abad te kanam waaye nag man nag man am naa sama yéen ak ma suñu yoon bu bari ci moom lay xel amin ne bay sotti ñaan ko rek ñaan ko rek amin Thank you.

ñi ñi nar a ñëw nag te wut si saa yi bu ñëwee bu ñu fi fekk mu ruus rek.